yaa ko moom xam nga ni yaa ko moom waral sa woor. rumtum ti daa région de Diourbel département de Mbacké commune de Touba jaaxle jeex ak Touba Belel Quincaillerie Lepp lu ngeen soxla won mu jëm ci walum matériel construction bâtiment lepp am na fa ci walum ciment fer ci ay qualité yu bax lool Waye lu jëm ci walum plombier sanitaire ñoma ci doy Ci wo ak lu jëm ci installation salle de bain dañuy jaayit matériel électricité yow mi sa courant daan cher daw sil gaaw ñu jaay la ay matériel yu bax lool ta yaxanal sa poche lu jëm ci walum matériel pièce détachée, lepp am na fa Auto, moto ba ci wélo. yow mi bëgg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 la ci Touba Belal kenkayere fi ngeen ko japp fofu la lu bax sofu len te ku liggey ñu pile yes ka ñu won na ndaw mbokk mi ndax nga yor yóbbante bu jëmba bu jige bitim rew te nga bëgg ko jaarale ci sécurité rapidité efficacité dawal léegi seeti seen cargo seen cargo dafa ñew rek jéxal njambatu mudu mudu yek fatu fatu yi ndax coono bi daan ci seen yóbbante loolu yi dañ na tay kon na kenn ku nekk jël yóbbanteem jox ko seen cargo mo xam fu mënd mën ba fu mënd jëm ci bitim réew gaawaay gi kaaraange gi foo ko rek weesu na ba mbokk yi seen cargo yëmul ngir gën a noppali clientam ci noonu lay service de transfert d'argent bu ànd sécurité rapidité ba tey naka noonu vente de billet d'avion kon mbokk yi jeex na daw leen léegi seeti seen cargo ñoo ngi fii ci West Foire cité Mam Rawane su ngeen dikkee di ngeen fekk Jibril Bousso téléphone ba tey mbokk mën ngeen a jokkoo ak Mame cargo depuis Turquie Istanbul sur WhatsApp et autres téléphone plus 90 541 951 95 42 seen cargo votre bonheur seeni nopp ma xibaar leen ak Cheikh Abdoul Ahad Kiimaan indil na leen produit a gaaw si yokku awra góor ndax dafa beral loxo jigéen yi ma ni ko nga ni lan mu ni ma indi boo xam ne dafay defar fees di defar ay ween ma ni ko ndeysaan ba noppi nag di la jox teint bu nice wante yow góor gi nga xam ne dangaa néew kattan Cheikh Abdoul Ahad Kiimaan indi na la poudre boo xam ne bis boo ko jëfandikoo da nga yëgaat sa bop ci nay wante yemuñu fofu de ndax indi na len yeneen produit yu bes muy adiwas bu bes tak maniko wallay day daw len gen seti Cheikh abdul akhad kiman mi ngi Nord Foire Dakar liko dere samedi ba mercredi 10 h ba 19 da fay fonctionner Touba nak mi ngi fa nek jeudi ba vendredi wante mbok mi yow bu da nga sori nga bëgg kula setal en distance woko ci numéro téléphone bi mu setal la ba nga 77 086 27 29 Ya ko mom xam nga ni ya ko mom waral sa woor am suba si. suba gaa ngi nii. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. yàlla la ko seet. yoroo fi wëñ ko wëñ ko yàlla bu wëñ wëñ. amoo wëñ wëñ. waaw amoo wëñ wëñ. maa ngi nii jàkkaarloo góor gi mënuma koo xàmme. àndal bala maa kàmmat. nijaay gis nga xoolal bi. bu ma xooloo boor yee yeewu naa ci yàlla ba liggéey sama liggéey 10 heures jot a dem nii dama doon raxas sama bagage yooyu nga naan ma ay. Mbathio alma caal gi maa gële sama yéene. nijaay mu ngi ko dee a jot 10 nga bëgg a wax. naaj baa nii moo la ko mën a wax marché laa jëm 10 heures jot na nijaay yow tamit tey dangaa bindante. Oh. yow rek demal nga jàpp julli rek ñaari ràkka baax na demal waaw man ma def ba karmat waaye man dañ maa liggéey man maa damaa jóg liggéeyu jàmbur wax na dëgg de ay waay jant bi ay waay sama caagri ji waay ay waay sama caagri ji ay waay ak ma ci amoon yére sama collègue ak laa ko façon 10 heures ci ni orang lay xedde nga def ma nii day dongee ñoom nga liggéeyu dong dëgg la lii dañ maa liggéey ci kilifa yi maa ngi taxaw. waaw ah, doo ma xoolal connexion connexion koor ba xam koor gi ñaata moom moo ci ñaata moom. wala ba xam ñaata moo ci des rek donc ñaata moo ci des. Eh, daa mel ni sax daa bokk ci coono bi mu ne. maa menarik enggak? Ini mas mau. Nijaay, wuri sama nay. Naar, naar, nijaay. Wey, nijaay, naar, naar, daw su leen. Wuy, yaay sa nijaay. Naar. Tons, defal nak, defal nak, defal defal ndànk ñu bañ ñu bañ lu xew defal naan ndox mi rek daanu bàyyi bàyyi ma ko bàyyi ma ko tons tons toogal toogal toogal tons defal ndànk mi ngi xoolal dara jotu ko sumb defal ndànk biiram mooy met defal ndànk toogal gis nga lii nii dal nañu baree baree baree bari ci weeru koor xam nga lan moo ko dal dafa naan ndox mu sedd. nekk ko ci biiram te naanu lu tàng. gis nga soo wooree. journée bépp lekkoo naanu. bala ngaa naan lu sedd muy ndox da nga njëkkee café ci sa biir. wala loo xam dana tàng pour mu mën a yee say butit lii dal ñu bari ci weeru koor. lii ne day indi ay feebar. biir bi métti ak yeneen jàngoro. dañ koy wax sax boo def sport. maanaam boo sonnee njëkkee naan tuuti. ba sa biir yow nga doo ko naan. lu bari loolu nag moo ko dal mais dara jotu ko dana ñëwaat. incha allah mais toogal toos bàyyi ko mu toog na toog nii rek na tàllal tànk yi na biir bi mën a ubbi. yaa ngi may gis. tons tons man naar la naar. man Ablaye. naar naar naar Ablaye Pël. Ablaye naar nga am Ablaye Pël. tàllal tànk yi. c'est bon c'est bon c'est bon baax na nan doog. nan kay. maanaam doog dana dana tane. nijaay. yaa ngi may gis. yaa ngi may gis. tonton moom léboon na loolu. xanaa yëgul la laa wax. nga dem xool ko comme niñ ko xool yi am jot xool ko. xam nga ko dalew. xaw ko. très bien waxuma li ko dal dara lu dul. maanaam xam nga ra ak ragal kooram. ñu bari nag jàpp nañ ne bu nu wooree ci weeru koor ba mat. Mhm. bu ñëwee bisimilah dog jot na. li ñu war njëkk a mooy naan ndox. te loolu baaxul ci biir bu yaram mën naa indi ay gàllankoor ci sa biir bu ne dog jot na boo maree da ngay jot ndànk nga naan lu tàng ba say butit yeew mm-hmm. nga doog a naan ndox yow nag sant naa la gërëm naa la mm-hmm. wax jàngoo nag mm-hmm. waaye gëstu nga ba xam lu baax saa su doog jotee da nga ñu wax jël leen tàndarma jël leen café doog ko jël ndox looloo baax ci wér gi yaram waaye moom jàng na de xamoo jàng te jëfewu moom mbaam ma sofi téere may ma café ma kee jàng laa jëfewu dara man na dox bu jéggi liggéey di falax falax. xaw ma jéggi liggéey bi de waaye yore koy wallu. Hmm? ñëw ma ko. man yaa de booy kii am day moom bu doon xam. waaw lu ma di doon daa nga xool ko rek nag ndax ma ko. yow moom dëgg yàlla nangu ku la kenn ba nga naan koy wallu ñëw ma ko man wallu ma kenn. waaw te baa doo ñaan ñu bis ñëw ñu wallu la. man sama roogi yàlla bis ñëw ñu wallu la du ñàkk ñu ah, nugum nugum sabar-sabar Ramadan Ramadan